Afrique dañu war a jóg ñun ñëpp bokk ndey bokk bàyyi parce que lii law suñu ay doom di suux ci bato yi dafa jot pour ñu xeex loolu nañ dem seeti président IBK président bu Mali IBK be naana IBK be naana Bonjour, bonjour. Nous, le président africain, il est temps que nous retenions nos fils pour qu'ils ne travaillent plus pour partir dans les, dans les pays qui sont des pays où ils ne comprennent pas la civilisation de ces pays. Vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, moi je trouve que au lieu de, de, de, d'empêcher les jeunes d'aller, il faut chercher du travail pour les jeunes. Parce que ce qui se passe dans les pays les les les les prennent les bateaux prennent les pirogues pour partir ce qui s'est passé en Afrique du Sud où les Africains qui ont combattu leurs frères de même sang vraiment c'est pas joli en tant que président africain pourquoi les Sud-Africains combattent des Africains c'est pas normal quand Nelson Mandela était dans les prisons nous nos fils africains ont battu pour la libération de Nelson Mandela c'est pas normal et Damawachi Olof Mané suñu doom yi nga xam ne ñu ngi jël gaal yi suñu doom yi nga xam ne ñu ngi dem Europe nañu toog ci Afrique ñu liggéey ñu président yi war nañu ut ay pexe pour téye suñu doom yi Afrique ñu liggéey priorité bi mooy xale yi nañu liggéey nañu fexe ba forcé ko société yi nañu embauché xale yi fukki at ak juróom-ñeent doom bu bu amee doom bu dëgër war na mun parce que Afrique am na ressource boo xam ne bu ñu toogee ñu liggéey Sénégal am na or Sénégal am na or Mali am na or Mali am na karité pourquoi suñu doom yi di bàyyi suñu dëkk yi di de ñu jox leen ñu liggéey pour Afrique mën a suqaliku. Tamborodi ñoxoon na. dama wane d'accord dama wane ñun bu ñu jëlee benn budget cinquante milliards. ñu ne nañu fexe ba tàggat xale yi ñu jox leen ku nekk sa projet ñu jàppal leen ñu imposer les sociétés yi nga xam ne ñooy jugee bitim réew di jël suñu xaalis di ko yóbbu par la force ñu embaucher ay jeunes pour mun a fexe xale yi toog c'est ça la solution il est temps que nous Africains nous unions nos forces boole suñu ay doole ñu def Afrique mu nekk benn CEDEAO Mali la Mauritanie Gambie Cap-Vert Niger man pare naa pour jël sama dëkk ñu dem élection Macky Sall Abdou Aziz Yaya Jammeh Alassane Dramane Ouattara ñu def élection kenn jiite Afrique boobu yeneen dëkk yëpp nekk ay région mu am ay gouverneur man nangu naa ko su ko defee ñu am benn jiit boo xam ne moo jiite CEDEAO ñu commencé ñu xool léegi Afrique dina suqaliku ina buruxo duruxana fanaxa faraxa duruxo ni kamali ana buruxo una duruxu duruxu malika burugu naamu durugu nunu ka furugu naamu i bɛ kane buraka durugu naamu malika furaka naamu burugu naamu durugu naamu murugu naamu buraka durugu naamu burujende naamu naamu aburugu naamu mutuhuru durugu buraka naamu buraka faraka naamu ina buruku buruku naamu duruku duruku naamu Sénégal Macky Sall ana baraha naamu muuru buuru naamu buuju buru ka fara naamu fara ka duruku dara ka ka fa fara kɔnɔ bɛ sɔbɛ sa a ye wa maliba mali balada direyana kakale ke maliya baraka direyana baraka furuhunuku maraka bra ana turuku dakari nuasoti abijaye banjulu fara duruhuni kapaya afuruhu gitari fo jalibanga malibadela praya Tirana Libreville Gabon. Prégadro Bamako Dakar yi Praha Banjulu Banjulu Nouakchott Nouakchott Nouadhibou. Yamoussoukro Abidjan Baraka Buruku Durukuna Union africaine Baraka Durukunu Araka Buruku Marika Buruku Duruku Ñuruku Ñuruku Ñulugu Ñulugu Buruku Bulugu Ñulugu Ñulugu Kuruku Kuruku Buruku Buruku Duruku Duruku Ñulugu Ñulugu Buruku Ani Ñuyu Kuruku Ñulugu Ñulugu Ñulugu Buruku Buruku Ñulugu ñugulu ñugulu ñugulu ñugulu ñugulu ñugulu